pour sortir ce pays ci situation bi mu nekk la preuve trajectoire bi réew mi jël c'est une trajectoire malheureuse boo xam ne ci fànn yépp xëy na certainement dinañ ci dinañ ci ñëw mais fànn yépp am na benn vidéo sax boo xam ne amoon naa ko dama la koy dama la koy tegal nga nga déglu ko euh, euh, da ngay déglu euh, suma doomu ndey kàddu yi mu doon wax déglu. Séné est-ce que am na sénégalais bu mun a weddi ni sénégalais yaa ngi souffrir fi mu toll nii ana mbënd bi ana njëgu dund gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw ñi ana paj mi ana jàng mi lan moo dox ci Sénégal nañ ma wax benn secteur boo xam ne mi ngi dox Sénégal kan moo ma ko mën a génneel amut. boo ko mënee génne yow nga wax ko. Macky Sall la woon boobu temps dë dëkk bi métti woon. lu fi changé c'est pour ñi nga xam def nañ fi. deux ans de régime Penda en faisant du journalisme arrêter d'être dans de l'équilibrisme gis nga un journaliste mooy ki nga xam ne ki nga xam ne day constater dara am le courage de le dire yow li ngay dund tey la gën a metti jamono bi muy wax lii sa wayafal tey la gën a xonq il faut qu'on ait le courage de dire aux Sénégalais ce qu'il en et moom bi muy wax lii dëgg la jamono jooju metti woon na waa est-ce que diggante boobu ak tey dafa soppiku. mais président n'oublions pas aussi tamit que ni ñoom. sept mois de régime lañ fi def su ma jumul ñu ngi dugg si sax. alors Penda bu fekkee ne yow yàlla rek ngay waxal. non may ma bu fekkee ne yàlla ngay waxal. yow déggoo ko mu ne kuñ fi fal seen tànk suñu tànk buñ ko falee deux mois lay régler problème mu réew mi yow dégg nga ko wala déggoo ko. dégg naa waaw léegi yow bëgg nga taxaw fii. mais dafa am lu dafa am tamit lu ñu tuddee les réalités du pouvoir. moom nee na gëmul réalité du pouvoir. moom nee na gëmul réalité du pouvoir nga bëgg ko solo robe ah, avocat moom même bu ko waxul non non cest à ko robe avocat mais moom même bu ko waxee tey jii mënuñoo mënuñoo ñeeka ni les réalités du pouvoir dafa am ah, Penda moom moo la gën a xam situation réew mi. mais je veux dire par la faute kii tey jii mi nga xam def nañ fi 12 ans de régime amoon temps tey jii pour defar réew mi ñoom ñu ñëw jël réew mi def fi 7 mois ou 8 mois ndax ñooñ tey jii mën nañ leen juger ci seen lajj. dañ leen di juger ci seen lajj parce que ñoom ñoo ñu diggoon ne danañ ko régler ci ñaari weer li waa ji régler ne wax ne dana ko régler ci ñaari weer bu ko leglewul ci ñaari weer wax na safaan aussi simple benn moom moo ne woon ku ngeen fi fal bu leen ko may délai de grâce. seen tànk tànkam après ay chroniqueur yu waane ay journalistes yu mantale yu sob ñooy ñëw taxaw naan la wuy waa ji ñaar ñaar juróomi weer la fi def wala juróom benn weer la fi def moom moo ne bu ko kenn may délai de grâce waaw ki ne du ma bu leen ma may délai de grâce xam naa li nekk ci réew mi xam naa problème mu réew mi dinaa régler problème mu réew mi nga def juróom benn weer juróom ñaari weer réglew ko bugaan mi koy wax nga naan ko non bugaan yow kii il faut ngeen xam ne juróom benn weer wala juróom ñaari weer la fi def man bokkuma ci loolu moom moo waxoon ne daf koy def na ko def. mais président ndax bu ko deful diggee bor la. ñàkk koo jëfe doo ko yeggale mais wor la. ah wor la ok diggee bor la. ñàkk koo jëfe wor la mais président ndax kon da nga gisoon lii moo waral. nga choisiroon bañ a ànd ak ñoom wala boog nga xa bëggoon xaar li nga xamante ni moom moo di deuxième tour. mais xam nga xam nga loolu ay ay ay wax yi mooy li may wax. xam nga wax yi malheureusement euh, c'est c'est xam nga boo nekkee ci euh, benn bulle da ngay am say journaliste ñu lay fenal nga am say chroniqueur ñu lay fenal nga am euh, say influenceur ñuy travestir ay diir demal nga dégluwaat déclaration ba ma waxoon j'ai dit en cas de deuxième tour pourquoi je dirais pas en cas de deuxième tour c'est ce que je loolu laa jàpp en cas de deuxième tour ku la wax en cas de deuxième tour mooy premier tour mën naa am Karim Wade mi jàppale woon Ousmane Sonko 48 heures avant mu leen di jàppale bindul tweet ne le deuxième tour est inévitable bind ko. oui waaw alors kon pourquoi on veut s'agripper ci waxi deuxième tour ba ma wax et nag deuxième tour yegg si nañ ci mooy législative yi. xam nga bu ñu liggéeyoon nit ñi du ñu nekk tey di xalaat législative danañ leen jox majorité wala duñ leen jox majorité parce que man dama mus a gëm ne daggkatu juuti mënta yore réew n'oublie pas Penda mois je suis un investisseur ah, moo tax ma ne la kon kay loolu boo ko yàggoon gëm kon ah. seen ànd moom loolu moom non dama ne deesu ko woon xalaat non dama ne euh, xam nga loolu mën nañ ci dugg si mais dama jàpp ne comme weesu na te juróom benn juróom ñaari weer a ngi fi xëy na dañuy nekkaat di euh, topp ci watitu jaan wiy dóor mais xam nga loolu man wax naa ci. mais c'est important pour leeral non non leeral dañoo jàppoon ni yow ak ñoom Ousmane Sonko seen diggante rataxoon ak ratax bu day ànd waroon na cee war a mun a am. non non dama dañu dem sax fu sori loolu man dama dem ne bu ñu demee danaa xool candidat deuxième euh, candidat euh, anti système bi gën a taxaw. ma jàppale ko et man gëmoon naa ne jamono jooju candidat anti système bi ñoom la woon. qu'est-ce qui a mais sys da nga da nga dama xamatul luy système ak luy anti système. ñoom ñu doon wax système bi ñoo taxaw naan nu Macky Sall kat ndekete nit ku baax la naan ma Faye Sall tata mais ana système beeg ana anti système bi bu ma demee ba xaw ma luy système ak luy anti système mais sañ naa téye sama bopp c'est ce que j'ai fait cependant. j'ai demandé aux sympathisants de Gëm sa bopp de choisir ki leen doy ci opposition bi et comme ñun antisystème lañu mais waa Gëm sa bopp ñi ci ëpp def nañu seen choix moo tax ma ne artisan wu chutu Macky Sall ñun Gëm sa bopp kenn mënuñu ci génne parce que liggéey bi dañ ko yàgg di liggéey dañ ci yàgg a taxaw et on s'est battu pour que lii am ci réew mi mu yegg si alors malheureux malheureusement ñun li ñu bëggoon mooy réew mi soppiku li ñu bëggoon mooy réew mi dox li ñu bëggoon mooy réew mi changé malheureusement on s'est rendu compte ay daggkatu juuti lañ jox réew mi man li ma gëm nag comme mooy li ma la wax daggkatu juuti euh, mënta feesal poche. kon daal loolu ma justifier sa sa sa sa nga teelee tey jii face à ñoom. Euh, non cin su naree neex su baxee xeeñ wax naa la. Penda man nitu principe la ak lu nit mun a waxal Bougane doo wax ne Bougane saful yàpp saful jën danga may contre sañ ko wax bu la neexee mais sañ nga jàpp ne man Bougane nit ku constant la. léegi ñu jàpp ni da ngaa teel a dal seen kaw parce que da nga xam ni peut-être ngi doon jëm ci sa kaw ci wàllu impôt comme ni nga ko waxee ne ay daggatu juuti lañ moo tax nga teel a yéel yëf yi jël ko en main opposé wu ak ñoom. gis nga pend il faut il faut je reviens encore là-dessus. il faut éviter ce discours ou ces, ces propos euh, à la limite euh, euh, yu lenn ci ay chroniqueur wala li di wax. mais tey dama bëgg nga leeral non non may ma ma ñëw je man yàgg naay leeral yàgg naay leeral dans le domaine des médias bu fekkee ne média ngay wax Sénégal yëpp xam nañ ne média amul xaalis. man bu ma amee teraanga nit ñi xam na ne du média moom ma ko jox dama lay fàttali ne ñoom bi ñu songee sama société yépp ñoom ñoom ñoom ñi nekk ci pouvoir bi tey bi ma génnee yeewi askan wi bépp société bu Bougane Gueye am dañ ko song vérification impôt li may wax lu leer la maa ngi koy wax jàkkaarloo ak caméra bi ma génnee yeewee askan wi lépp lu Bougane Gueye wax am ci société ci réew mii ñoom dañu déclenché ay opération de vérification impôt ci samay société ci domaine yu nekk nag parce que man jàmbaar laa man liggéey laa gëm dama gëm ne lépp lu ma war a am ñaq su ma ñaq moo ma koy jox la maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon lépp lu ñaq yi maye rus naa koo ñaan suñu borom ñu déclenché ay opération de vérification ci samay société dama lay jox rek benn structure bu tudd BOS muy Bouygues Solution and System Corporation pendant six ans société boobu mille vingt milliards ñoo fa jaar dama ne mille vingt milliards ñoom ñi yore réew mi kenn musu ci gérer benn milliard man société boobu ma yoroon mille vingt milliards moo jaar ci sama loxo ñoom administration fiscale bindal ma këyit ne ma absence de redressement maanaam ñun impôt yow ci xaalis bi jaar ci sa loxo yépp yoreeloo ñu ci fistin xanaa kon ñu war maa sant man kenn waruma xarab man dañ ma war a bokk ci ñi ñuy sant mille vingt milliards jaar ci sama loxo impôt bind ma këyit ne ñu yoreeloo ñu un franc loolu am na mi ngi fii kon man lu may daw penda man gaynde la penda loolu tàmbaliwut ren man nguur gu ñëw parce que man dama jàpp ne je suis dans le privé et privé boobu ma nekk di liggéey war naa fexe ba lépp lu may def ma teg ko ci yoon jaarale ko ci yoon bu fekkee ne des médias moo la tax ngay wax des médias dañ leen defal euh, taxation d'office di leen laaj quatre milliards koo xam ne média chiffre d'affaires am ci juróom-ñaari at mënta yegg ci quatre milliards noo koy laajee naan ko wuy par exemple benn année euh, def nga ci chiffre d'affaires u cinq milliards loolu nu mu munee nekke loolu ba mu amee ci jamonoy Macky Sall moom Ousmane sonk dafa génn ne vous vous voulez asphyxier un adversaire politique xanaa xamuñu ne coowu des médias bii ñuy wax du coow bu bees coow la woon ci jamonoy Macky Sall coow boobu moo continuer ba tey du coow bu bees de tekkiwul ne ñoom dañoo liggéey liggéey bu bees am trouver dara lu bees déedéet. ki Sall ci jamonoom la mu defoon la administration fiscale defoon te ma wax la ne la loolu administration fiscale defoon jamono booba ñoom ñii la woon parce que ñoom ñoo téye woon impôt domaine mhm. bi ma génnee yeewi askan wi la ñu song samay société jamono boobu la ñu def lii ñu def loolu mooy continuer ba tey nii mais dara du lu bees. d'accord dara lu bees amu fi. d'accord des médias bi ñu fi waxee ne dañuy yokk salaire liggéeykat yi. dañ koy yóbbu huit pour cent mais man yamuma ci huit pour cent man dix pour cent laa def demal nga laaj des médias journaliste nga solal sa dàll nga dem laaj des médias est-ce que am na fa kenn ku fay liggéey ku ñu mus a yoreel benn weeru salaire. laajte naa ko pare. 2008 la ñu commencé ak léegi demal nga laaj des médias est-ce que am na kenn ku fa mus a am retard de salaire juillet 2024 la mus a am. tax mu am. mais parce que dañu tëj seeni compte d' président pour évoluer <laughs> alors euh, lu weesu ba tey li nga xamante ni moo di acte ñu fi posé daf ci bokk li nga xamante ni moom moo di reddition des comptes jamono ji nag am ay autorités yu nga xamante ni leen di interdire euh, ñu quitter le sol sénégalais te ñenn ñi dañuy bëgg dem di vaquer à leurs occupations ba bu ci mujj euh, muy suñu doyen di ma Madiambal jàng sama doyen moom gis nga bu mu bëggee voyager dañ ko tere mu génn déjà yow ban gis-gis nga am ci lépp li nga xamante ne am na en tout cas ci lu ñeel reddition des comptes yi ba ñu yegsi ci li nga xamante ni moom moo di interdiction de sortie am nag ñu ne lu ni mel déjà buy am dafa war a dëppoo ak yoon parce que